waaw salaamaaleykum ñu ngi fii ci Mérina Dakhar ci dëkk bu ñuy wax. Gàtteñ di assister benn parrainé benn final fii. mais dañu ñëw fekk fi loo xamante ni il ñëw ñu dugal ko ci toile bi quoi parce que dañu fi fekk suñu mbokk buñ naan. na Sow mu yor charrette bii. moom mooy moyen bi nga xam moom la utiliser pour dugg ci village yi fii di parrainé ah waaw d'ailleurs mi ngi nii ah, feuille yi mu yor ni déjà il a am na signature yu bari yoo xam ne yor na ko kon ñu koy laaj rek moom nan la ci kii bu gaaw nag pour mu bañ a waaw maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm fas yéene nag parrainage pour Khalifa Sall. xalifa bëgg nañ ko yaakaar nañ ko am nañ ci moom yaakaar bu baax am nañ ci moom confiance li ko dal nag ñoo ngi ñaan yàlla yàlla na ko ko yàlla teggi julli day am natt gëm nañu ko moom it gëm na ko ko fu koy fu mu yem rek neex fii ba géej gi des walaat nag donc moom la mu jeetaak fii ba géej gi des walaat ñoo xalifa la rek. xalifa waaw ah, loolu moom neex na dégg parce que sa charrette bi nga yor nii joxuñu la essence joxuñu la dara nga yor ci àll bi. lii mooy wane ni ngëm-ngëm rek la. rek xalifa xalifa ci kanam ci kanam ci kanam rek. waaw war nañu dañu war mbaam dañu takk charrette dañu loué kalandoo dañu àbb oto. incha allah dañu dox dañu wogot. suñu caay dana xar. <laughs> macha allah ba mu génn. macha allah